So, please don't it. Please don't it. I'm we killed it PDG am nañu ndam PDG am nañu ndam am nañu ndam Total Gueye Total Gueye lii ba jàmm la DDG lii ba jàmm la umu lii ba jàmm la ñu ngi gërëm ñëpp di bëgg di gërëm ñëpp ah saf bi nga xam ne ñoo nekk fële Sénégal macha allah liggéey bi rafet na saf bi nekk Sénégal jàppale mi yaa gisee ba lépp sotti nii macha allah guichet fermé guichet fermé macha allah lu réeli apprécié ni mais Aba Aba lii ba jàmm la DDG wi diinit félicitations félicitations acha félicitations à toute la famille we appreciate you thank you we love you Paris jërëngeen jëf ah. bi le de jërëngeen jëf jërëngeen jëf jër doyeelu leen nag mais jërëngeen jëf kontaan nañu kontaan nañu kontaan nañu gaay doyeelu ñu sama rakk ji gars doyelu doyeelu ñu allah guichet fermé fi lañ ko défé ci Paris ah même pas ci deux ans musique sénégalaise nga ñëw jouer à l'étranger à Paris non le défi est relevé PDG Oumou à tout le staff de l'équipe thank you guys tout le staff de Mia Guissé bi nek Sénégal Kourouma ñi nga xamni ñoo dem Tamba jërëjëf jëf yéen def lépp sama système bi sama rakk ji tarkalla sha allah lépp rafet na dara ñaawul oh gars yi bëgguñu sax ñibbi doyaluñu guichet fermé oh, oh maa ngi yow ba Wembale maa ngi ba Kaana ba gars yi ndeysaan ndeysaan oh, oh. tàccu leen. ndeysaan ndeysaan ndeysaan Saalu tubaab la ndeysaan oh, oh. sama rakk ji. door wi diinit à toute la staff. Thank you, Samaraki We did it. We killed it. Thank you, c'est la famille. Non, public, ils ne, peuvent, ils ne veulent pas partir. Parce que c'est Miyagise, la fâcherie, la fâcherie de, de, du Sénégal, du Africa Golden Girl of African Music. We say thank you to everybody. This is the first time, même pas deux ans, musique sénégalaise, musique africaine, musée à Paris, Defco, guichet fermé. Thank you. Nous sommes équipe. équipe mi yaa gise bi nekk Sénégal yëpp waaw ok come on tarkalla macha allah rafet na oh mais tarkalla loo wax nii rek la mënoon demee oui déedéet ñu ngi lay tamit kañ le 27 septembre. Sénégalais Sénégal tout le monde thank you la manière dont vous appuyez vos artistes sénégalais parce que thank you brother we appreciate it ah, thank you bro Senegal, sénégalais yi bëggu ñëw ñibbi doyaluñu ci concert waa doom day Ndiaye Dollar xaar gars dem day sànn Sankara Mbaye waaw mais doom day waa boy ne mais ko allah waaw teel a ñëw incha allah rabi kontaan nañ kontaan nañ waaw waaw waaw waaw waaw kontaan nañ kontaan nañ baax a baax gis ngeen de kenn bëggul dem you know sama gars yi bëgg naa leen de gis ngeen les sénégalais les sénégalais les africains de l'extérieur bëgguñoo ñibbi ndox doyaluñu ci Mia Guissé gis ngeen tarkalla macha allah waaw mais bëgg naa doom day bëgg naa leen de yéen ci kawam you know waaw eh, ça va lu bees et euh, Abi yow sama sista nga et les activités yaay cool ah content ah. Contana. Ah. Abi voilà notre sœur Eh, dafa gaaw a jeex doyaloo te deen ko defaat incha affaire rien neex rek lu neex du lu neex du gaaw what up homie what up family la famille comment ça va wesh wesh maman y a cool ah gis ça c'est la famille Mia Mia Mia Mia na génn xale nañ taxaw fii yuuxu nañ taxaw fii ñëpp ñu yuuxandoo Mia non xaaral non di ngeen ko gis bu leen dem téye leen seen ticket bu leen dem mais taxaw leen fii ñu yuuxu Mia Mia patron bëgg naa de lépp jàmm Mia di il va sortir elle va sortir bientôt ay waay bu leen ma laaj mbay waay dama mbayee nga fa di la kale bu leen ma ko laaj voilà moom i ma nga fa daa di dama dem yéen cool voilà ñoo ko gisandoo doom gis nga gars yi bëggu ñoo sax parce que fi mu ah, bëgg Mia sa man lay seetaan yow yaay gis Mia nag ah. ah taxawal nii di nga gis Mia man xajuma ci coowal tubaab Mia taxawal nii nañ ko lijjanti léegi <laughs> Mia génnal nga wax ak nit ñi ah ah loolu leer na waaw ça Mia génnal wax ak ñi xaw xajuma ci coowal tubaab. waaw il faut l'attendre faut pas partir de nga xaar ko fii ba fajar ah doom day euh, euh, euh, Mia Mia indi nga fi coow loo xam ñëpp yow la ñuy xaar Mia bu fi indi histoire ko tëggalal ko Bercy nañ taxaw yuuxu Mia Mia Mia Mia génn leen na police yow na police génn yuuxu leen waaw. influenceur bu soxlawul visa. soxlawuma visa. nationalité américaine du du du ay caaxaan. dafa wóor ku ma laal <laughs> tax rek influenceur yi Sénégal liggéey ma yàq ma. yuuxu leen de bu kenn dem fal fii la ñuy fanaan xaar mi yaa xaar leen ko bu kenn dem waaw amul leneen de yuuxu voilà. leen ma ah. ñëpp yuuxu bu kenn dem. Mia wàccal gaa yaa ngi lay xaar. voilà. voilà tarkalla macha allah ça c'est une première. sama xarit yi la ma jàll rek yeneen defaay baal ma àq ma ñi kon yéen a ngi soog a yegg si xanaa da ngeen doon maquillé wu moo tax di soog a eh, kaay yi fi yegg sa kaay yi ngeen di laqatu kon fekkee wu leen concert di ngeen bàyyi tardé di ngeen bàyyi tardé yow yaa sos yow doy nga waat dugg nga ok c'est bien noonu la de gis ngeen si ne may leen bis bi jàll ay mi yaa gisee lii baa jàmm la mi yaa gisee lii baa jàmm la taxal ma ñëw lii baa jàmm kenn bëggul dem mi yaa gaa ñu doyelu ñu sama rakk ji lii baa jàmm la ñu ak yow ba wémbale oh oh ça c'est toute une première mais bëggee sama gars yi ah doy na waat Pascal lii baa jàmm la <laughs> teg <laughs> ay mi yaa gisee lii baa jàmm la é waa doom day

la famille. waaw. xaaral ma ñëw. ma nga fa. bu ko fi tuddati de bu ko fi tudd. la famille. non non non non non non non non lii rëy na. ni yaa gisee embouteillage bi mais PDG Oumou jaajëf. liggéey bi rafet na kontaan nañu mais doom day mais bëgg naa leen de. la famille. oh this is nice this is very nice. sama xarit bi nii nga def ah. ah da ngaa yéex a ñëw yow loolu nga doyee waat mais bëggee sama gars yi bëggee naa leen bëggee dam day bëggee naa leen kontaan nañu kontaan nañu y di kontaan nañu sama xarit bi maar nga bokk yaa naa maar patriote nga da ngaa mën a kaas da <laughs> mën a kaas la famille kontaan nañ ci yéen jërë ngeen jëf y apprécié di kontaan nañu kontaan nañu kontaan nañu ma dam day c'est la mifa fa nañu bu baax baax kontaan nañu we appreciate it waa waa léegi dem leen ngeen ñibbi nag <laughs> ay mi yaa gisee lii ba jàmm la embouteillage ngeen di biir Paris nii oh sister yéen a ngi ko jaayee frère bëggee nañ leen bëggee nañ leen tarkala macha allah xam nga lu waaw xaaral yaa ngi jëf waay kontaan nañu kontaan nañu kontaan nañu ay mi yaa embouteillage bi lii ba jàmm la les <laughs> retardataires ont toujours ont toujours tort waaw ah, yéen tardé wu leen yéen bokkoo ci ñu tardé da ngeen a tardé nii <laughs> da <laughs> daa jógee bo ba London da koo raté ndeysaan da ngaa raté Mia amel na la àq Mia gisee amel na la àq oh Mia tool nga waa London xoolal sama gars yi yu rëy yi ak ca xam bi Mia oh. xoolal sama gars yi yu rëy yi. ngeen ne a Guissé na wàcc ñëw waxtaan ak yéen fan si yaa ngi ni taxaw ci bi biti Mia na wàcc na wax ak yéen moom ngeen di xaar làkk ko pulaar làkk ko pulaar ne ko wàcc ari Mia mais xale bi am na maanaa de gisoo Mia <laughs> eh, eh, eh. mais mais PDG li dañ koy defaat umm <laughs>